chose daal di tàng jër jamono ji agent yi di jàmmarloog ak kii di seen présidente bi gannaaw bu ñu nekkee di amal seen assemblée générale tey jilee ñoom ñi le nag di naqarlu anam bi nga xamante ni nii noonee lañ daal di organiser yile assemblée générale. depuis septembre 2023 ba tey mandaam dafa jeex mandaam dafa jeex mu nekk si benn forfaiture boo xam ne boobu ba tey ñoo ko ciy wax di ko woo ko ne si njëkk dialogue pour wax lépp pour mu bàyyi mënul bàyyi lenn rek ne day def élection yoo xam ne da koy def élection yoo dafa sélective non inclusive. bokk na ci lu leen métti mooy présidente bi nga xamante ni nii jàpp nañ ni mandaam dafa daal di jeex moom présidente bi sax nekkat candidat yi la élection seen gis-gis mooy dafa daal di violer lii di texte yi. lu national looy xool ni man ma Samba laay àndal ma dem laay àndal ma ma euh, ma Paate àndal man du bokk. nen ñëw bokk ñëpp bokk ku mën sa moroom gagné loolu la ñuy wax de renouvellement transparent et inclusif. non sélective ñun loolu lañ bëgg pour sa def sa sa sa Croix-Rouge sa croix sénégalaise là mais malheureusement elle pour elle est mais na xam ne ñun bu sonnul moom maire bu am 76 ans ñun xale ñu sonn. 6 si 46 départements yi nga xamante ni moom la Sénégal daal di am. daanaka amuñu représentant ci la élection loolee nag métti leen bu baax a baax. ñëw ut ay garde corps teg leen fi énerve ne bu ñu accédé man man noonu dama si gaañ soxna bi dañoo dañoo saax saaxee fii ba gaañ ma man jaral na ko. man sama bakkan su fa jaroon dal seen sax ma bëgg naa parce que fi mu toll nii ñun ñoo koy lijjanti. parce que pour bokk Croix Rouge bokk si euh, renouvellement yi da ngay jënd 50 cartes boo ko jëndee si ngay mën a bokk ñun ñëpp a jënd suñu carte ñii ay 10 millions ñii 7 millions moo tax jëloon yëpp ba mu mat 18 millions 500 mu ne waaye a a def ak ñun on va pas l'accepter. naam sax tere nañ leen dugg ci boobu boobule saal wante rek ñenn ci responsable yi ñoo ngi wëyal seen assemblée générale kenn ci ñoom xamal nañu ne dina ci àddu.